Khar Diouf nekk diplomate waaye nekkit ambassadeur bu Sénégal fële ca Cameroun moom tabb nañ ko secrétaire général bu ministère de l'intégration africaine ak affaires étrangères buñ sukkandikoo ci journal bi di APS ci alxamis bi depuis 2018 ba léegi monsieur Diouf nekk ambassadeur bu Sénégal fële ca Cameroun waaye nekkit koo xamante ni bi ni moo doon teewal Sénégal fële ca Centre Afrique waaye mu doon toog fële ca Yaoundé buñ sukkandikoo ci ministère bi moom Diop liggéey na ci yeneen ambassade yi nga xamante ni ñoo nekk ci bitim réew teewal fa Sénégal fu ci mel ni Gambie Guinée Bissau Belgique Portugal Luxembourg ak Japon bu ñu sukkandikoo ci suñu source moom am na diplôme bu mag a mag ca école nationale d'administration ENA section diplomatie ci atum 2002 waaye tamit daal di amit diplôme d'approfondi DEA en philosophie loole mu am ko ci 1998 fële ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar yokk ci certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire bu école normale supérieure bi nekk fii ci Dakar nekk docteur ci philosophie fële ci université Paris Nanterre moo monsieur Diouf it daal di nekk co-auteur bu ñaari livre yoo xamante ni bind nañ ko benn bi di développement et authenticité humaine bi ci des di philosophie à l'ère de l'anthropocène connaissance ak savoir 2021 ak résilience de la religion ambivalence du religieux et défi du vivre ensemble loole nekk ca Harmattan 2022 tey jii mi ngi liggéey ci beneen téere ngir amal ab teesam doctorat bi nga xamante ni defoon na ko ci mai 2023 liggéeyum doctorat boobule mu nar cee waxtaanee li nga xamante ni mooy religion et politique démocratie délibérative ak les défis du vivre ensemble